Assalamu wa rahmatullahi wa En 1900, le Saloum accueille avec joie l'apparition d'une nouvelle étoile. C'est la venue au monde d'un homme charismatique pétri de valeurs morales et spirituelles. Un homme qui va porter la voix de l'islam partout en Afrique et dans le monde. Cet homme s'appelle Ibrahim Agnès. Ibrahima, c'est le nom qui lui a été donné par son père Abdullah Ignas. Mais quelques années plus tard, Baye et Cheikh al-Islam vont s'ajouter à son nom, ceci en reconnaissance à ce qu'il représente pour la Ummah et le combat qu'il mène pour le développement et la promotion de l'islam. Cependant, il faut reconnaître que ce n'est pas le fruit du hasard. Et pour le comprendre, il faut aller à Kossi, un village situé à une dizaine de kilomètres de Kaulak, où Cheikh Ibrahim Agnès a lancé en 1929 la Faïda Tijan. Un appel qui vient confirmer la légitimité de sa part dans la voix de Cheikh Ahmed Tijan, fondateur de la Tariqa Tijania. Trois ans après, c'est-à-dire en 1932, l'histoire se répète à Kosibaï avec la naissance d'une grande dame celle qui va servir toute sa vie durant l'islam et le Coran. C'est Sheikha Mariam Ibrahim Agnès, plus connu sous le nom de Seyda Maria Agnès. ويمنعون الماعون ويمنعون ال ويمنعون ويمنعون ع wasite xam naa ne foofu la bàyyi feeñee woon man ci ñi fa juddoo laa bokk man ak Cheikh Tidiane ak mu ko soom defe naa ngi juddoo ko aussi alhamdulilah dëkk cosaan la ba léegi boo demee neeg maama su jànq ba mu nga fa bàyyi na ne soxla su fa nit ñaan mu nangu nit ñi dañuy jógee ba fii dem Kossy dem ci nekk maam Astu Jànq ba pour ñaan sa soxla. waaye dafa daan dem ak ñëw rek da ko foon waaye nag Kawlax laa yaroo foofu ci ñeseen sama yaay fa la dëkkoon mu ngi foofu ba léegi ci mooy gaalu tan bi la su fekkee ne daal juumuma yaakaar naa ne 1932 ci la juddoo juddoo baayam yar na ko yar bi nga xam ne moo nekk ci moom moom baay xam naa ne fàttaliku naa baay daan na ñëw dañuy yóbbaale ko si mu daan di béyi foofu ñu dem ànd ak baay dellu si ak tey ba la même chose bàyyi daan nañuy yóbbaale fu muy dem dafa ñuy yóbbu ndeysaan dafa baax dafa ñoo bëgg. ku bëggoon bàyyam la bëgg goo xam ne bëggi doom ak bàyyi d'abord bëggi euh, taalibe ak sëriñam bëgg euh, euh, individu ak giddam ñett yooyu yëpp daf ko symboliser ci bàyyi. doomam la te ci njëkk ñi njëkk juddu ci këram ci la bokk. 1932 boobu muy juddu boobu bàyyi mu ngi am fanweer at ak ñaar kooku ci dundi bàyyi la bokk waaw ba pare bàyyi def ci moom moom itam mu wëlbatiku defaat ci ñi nga xam ne ñoom la jamono anteet ñu nekkoon ci loxoom. Seyda Mariam mu ne ba mu juddoo yaayam fa ba ma dikk mu ne ma sama doom jëkkër dimbale ma ci. ndax du ma am jot di ko boot ak mu ne te am na ku mu ko bambaaneel mu ñëw wax ko sama maam mu ne ma ah loolu sawar naa ci ma dem su ma xëy su ma xëy rek dem bu ndékkee ma ma fab indi si suñu kër baañ jël indi laat ba mu feer bàyyi na ma kii sa rakk la gannaaw yow miin na la yaa ko xamee woon na ko miisal Seyda Maria Magnas va passer son enfance, ensuite son adolescence à Kaolac, dans une période difficile marquée par de multiples crises dictées par les affres de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, le Saloum, connu pour sa forte production arachidière, n'a pas été du tout épargné. Mais ceci n'a aucune incidence sur la vie de l'enfant qui était Maria Magnas, puisqu'elle est entrée à l'âge de 5 ans à l'école coranique

ci anam gu wéré a wér ba mu tere alquran baayam def ci mom ité jangal ko xam-xam ba def ci mom itam xam-xam bu wér bo xamné ne mën jëriñ képp ko xamné ne nga wala ngay goor sax ta xamul. Seyda Mariama Niass n'a pas mis trop de temps pour mémoriser le Coran. Il faut aussi comprendre que ce n'était pas du tout facile, surtout pour une fille à l'époque. C'était aussi un grand honneur pour elle et sa famille. ñoo ma jàngal ba ma mokkal ko ma tari ko ci kanam mbooloo ci minal baqara ilal naasi guddi gu jot buñ jullee gee la bàyyi di oote lëj na bi ñu ñëw toog lëj na mooy commission ñu ñëw toog di ma déglu moo tari ñaar fukk xisib ci guddi ci kanam seede yi guddi gu njëkk gi guddi ñaareel bi ma tari ñaar fukk guddi ñetteel bi ma tari ñaar fukk mu jeex القرآن الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين نستعين نستعين أنا فلاجل يوم ببطان defal ma feet ju rëy rëy may ma may ma fas may ma nag mu am بجور دوبل دولار mu ko décoré woon bi ma taree ba pare kontaan trop ci ci moom parce que amoon na ci moom yaakaar mu amoon na ci Seyda Mariam yaakaar ya ci xew yëpp ci appréciation ak déclaration bàyyi ak ak ak cadeau yi bi mu ko may tout moom moo mujjoon tax nag mbir mi siiw waaw ñeneen ñi itam xam nga cadeau yooyu itam maanaam pédagogie la propagande la bu bu buñ lu wax ci kaw ñëpp dañuy takkaayu itam pour pour ñoom itam egg foofu mel noonu. benn bés sax mën na mos naa nekk ci waañ wi di préparer di jàppale yaayam fekk mu ngi jël xalimba def ko ci noppam fokk ko gisaan xalimba lay def ci noppam bi mu nekkee xale ba yaay ji ne ko ba jógee rek teg sa xalim bi ci sa nopp bi fàtte sa liggéey bi benn jigéen bu fi nekkoon koo xam ne yàlla may na ko gis-gis mu ne ko gis na xale ma gii muy mu def ci nopp bi de alxuraan lay lay tabaxal de bu ëllëgee ñëpp da xam ne nitu alxuraan la te boobu il avait à peine moins de dix ans. man bi may nekk Kossy di xale laa dégg ñu naan Yaama Ñas doomu bàyyi la tari na alxuraan Lamine Ñas doomu bàyyi la tari na alxuraan boobu xale bu tuuti la Kossy ñi di ko woy naan. Je me souviens que quand elle, moi j'étais tout jeune, elle avait un cheval que lui avait offert baynes Et eh bien ce cheval était beau et Yama l'aimait beaucoup. Et le cheval a mordu, a mordu ici, sur l'avant-bras droit de Saïda Mariam. On voit encore les traces de cette morsure. Et à l'époque, j'étais jeune, on racontait que Baï lui avait dit c'est un signe que le cheval t'envoie parce que tu vas trop vite dans l'apprentissage du Saint-Coran pour que tu ralentisses un peu pour ensuite aller dans la nationalité de l'intelligence humaine. Saïda Maria Magnas a très tôt découvert le monde. Son premier voyage avec Bagnas remonte en 1949

وسن كوغس ناري يختال دفع القرآن واج جيجين دي جاق المرأة تقرأ القرآن أنا أقول نعم ني دي أوتان ترغي كالين قول والله جيجين دي مونجي جانغ القرآن كامل بلا عمد جانغ ني أو هي موشي نيو مامك الحمد لله لي ما يال جيري جيف باي أنا واخ باي مانكو جماجي دي نيب ماي سيتان ما امي سوال كامل بي دي جانغ ني نينا جيجين القرآن En 1952, Seyda Maria Magnas rejoint son domicile conjugal après son mariage avec Elage Oumar Khan, grand notable, ami de Baïnias. C'était à l'avenue Malixi, une rue qui inspire piété et spiritualité

dañoo mujj di yónnee seen xale yi ñëw toog sama wet xool na may composé alhamdulilahi rabbil alamin mag mu am doom ji mel noonu daal jël ko dénk ko nit ginnaaw bi mu ko dénkee yàlla loola du doon programme boo xam ni day taxawal lim doon def déedéet au contraire da koy war a yokk temps boobu doomu Baye Niass bu nekk jeune

les voisins et beaucoup de gens venaient amener leurs enfants chez elle et puis elle commençaient à les enseigner et c'est devenu vraiment un métier pour elle, quoi à côté de le métier de femme d'épouse qui s'occupe des tâches ménagères donc ça a pris une place très importante dans sa vie. daara yi ma jaar yëpp benn daara la daara ji fële la nekkoon ba mu nekkee Kaolack sax mu ngi amee woon daara waaye daara jooju la transformé indi ko dakaar te am na ay ñi doon jàng ci daara yooyu am nañ ay sët yoo xam ne ba léegi ñu ngi jàng ci daara yooyu parce que yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne yàlla bu defee teraanga ci place le minimum mu fay muy toog ci place booba mooy dana fa def trois siècles

perron bi buñ feesee ma génn ci buntu kër gi sama borom kër dafa amoon bureau foofu mu xëy rek jël bagage am yi may ma bureau bi nee naa jël boole koog bi di ci jàngal fii jigéen ñi fii góor ñi mooy moo nekk ci buntu kër gi ma ne moom ba léegi ma fa elle était très, pédagogue. Bon, elle nous formait, elle nous enseignait. Et puis, on recevait beaucoup de services. Ça, je me rappelle très, très bien. On recevait beaucoup de services. Et c'est à, la langue qu'on s'est rendu compte que c'est par ces services-là que vraiment on mémorisait. Parce que tu mémorises ou bien tu, tu vas souffrir. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ما buma waccan sax damay dem sama serigne dafa bay jangal xalé bu dugg école du la jël man bu ñu wàccee damay dem sama néeg xalé xale yi jàng école ñu dama fekk ma leen di jàngal ak sama serigne buy génné itam man lay denk dara ji may jàngale dama yàgg bëgg jàngale daal. C'est seulement dans les années 80 que la Dara de Malick a commencé à attirer l'attention des médias, même s'ils n'étaient pas nombreux à l'époque. Le journaliste Mamadou Malay Diop de la télévision nationale lui a consacré un reportage dans son émission Fenêtre sur l'éducation. C'était en 1986. Darul Quranul Karim traduisait Maison du Saint-Coran, une pancarte perdue dans une forêt d'enseigne sur l'avenue Malixi de Dakar. Le bienfait n'est jamais perdu, surtout pour celui qui œuvre pour la face de Dieu. Cette femme de valeur et de vertu qui avait transformé son appartement en école coranique a vu ses œuvres rétribuées sur terre en attendant la grande récompense promise aux personnalités de son rang. Le ben ministre euh, affaires religieuses bu Algérie moo fi ñëwoon ak julli nak julli korité mu gis suma xalé yi ñoo doon jàng ci julli gi and ak Abdou Diouf mu laajte kii fan la nañ ma fa yóbbu daara mari ñu indi ñu indi ko moom ministre bi ndeysaan mu ñëw fa nag kontaan mu won ko xale yi ñu jàng ba mu ñibbee rek dafa taxaw président ba ne ko kii benn jigéen bu ma gis boo xam ne ci taarix laa ko jàngoon suma koo gis moom laa dem fekk ci néeg bu suufe néeg ba mu ngay taw dafay senn ci kaw jigéen jooju daal bëgg naa nga dimbale ko ci fu mu dëkk président bi ne ko amul benn problème demal jëndal ko jox ko juróom fukki million ak juróom te boobu temps cinquante mu ne ko demal nga jëndal ko fu méngoog moom mu ñëw ne ma juróom fukki million ak juróom yaa ngi nii président bi moo la ko jox ismi Momad Dahar jilmizu fi maadi tahfizu Qur'an karim min cheikh al Mariam bin cheikh al islam qadimatul Qur'an karim Dakar man dama fi amoon mag bu doon jàng fii yàlla def Sa maison de Mermouze, c'est presque la dara de Malik Sibis. Ici, tout vibre au rythme du Coran et de l'islam. Pour étendre ses activités et son enseignement, Seyda Maria Magnas n'a jamais attendu d'avoir les moyens de sa politique. Pour le démarrage de la Dara de Sacré-Cœur, elle avait loué une villa. Sacré-Cœur, oui, am benn euh, presse bu nekk a moom presse ko doon fayal weer wu dee at mu jot moo may jox lu may fayee Sacré-Cœur ba benn bés ma ne ma doo proposé borom ndax du la ko ma proposé ma ne ma waaw dama koy jaay mu jaay ñu ko ji boobu temps xam nga ñaata million يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله

deux cinquante wala léegi-léegi mu ñëw nekk cent cinquante mille. lekk bi moom toujours mu fekkee añ la moom dañuy sóor quinze kilos la ñuy sóor mun nañu wax ne lu mat vingt cinq palaat moom dinañ ko dinañ ko dinañ ko yegg ci añ bi ak reer bi. Saïda Maria Magnas a des rapports privilégiés avec le Coran. Elle aime le Coran, elle l'adore, c'est sa vie, c'est aussi son monde. Je ku ku wax rek ci je rek wax ci alxuraan nit la koo xam ne alxuraan la yàlla yàlla def ci boppam mu dégg ko ba am na benn ambassadeur wu Algérie mosuma fekk Jedda ñu ñu bokk ci benn réception boobu maay consul maay consul général ba foofa ñuy waxtaan ba mu ne ma man daal am na benn jigéen boo xam ne impression na ma daf ma fàttali benn taarix bu ma jàngoon ci téere yi am jigéen boo xam ne dafa nekkoon ak alxuraan ba nga xam ne lu muy lu muy tontu sax alxuraan lay tontoo ba man mën naa oo ndaw soosu Seyda Mariam boobu tuddee ko al mar'atul mutakallimatu bil quran mooy jigéen joo xam ne alquran lay waxe baatu Maryama daa am lu muy tekki boo ci tegee sawda daa am lu muy tekki wala fi naan sooda ku xam loolu boo déggee ñu ne ma ngay liggéeyal alquran du la bett xaadima mooy koo xam ne fuñ la siin ngay dox ci alquran ngay dox benn yaa ngi koy jàngale mbaa yaa ngay wujji mboola mu woote ولا يا نغا توك ديكو نفر ولا يا مانام فين لا فيك رك ياغي سي موم مي اما القران لا باسكو خدمنا القران نيم كو موكال لو ني تاريكو موكال نيو باري سي غور اك جيجين سي اي نيت يو خم سوخ ياخلو لين سين ايكول بوبليك ني ديم با دكتورا باي دا فا نيانون يالا جاغليل كو كرامام نيك دي القران كون نيم كو حفظك الكتاب الكريم كرامتي الى لقائك العظيم dëgg-dëgg karaama googu bu ci seydaa Mariam ñëwee tànn li nga xam ne moom mooy alquran dëgg-dëgg rawatina mu yóbbu ko fële ca Ndakaaru fa nga xam ne jafe na lool pour lim fa taxawal waxuma jigéen waaye pour góor sax taxawal ko fa lu jafe la kon bu ñëwee taxawal fa taxaw ko foofu ci ndakaar jëriñ ci doomi Sénégal yu bëree bëri bëri ba nga xam ne tey ñu bëri mën nañoo toog tey ne daara Seyda Mariam moom laa génne kon nuñ mënee joxe exemple ci mahad bi nga xam ne mahad Mawlana Cheikh Ibrahim la. alxuraan da koo jaral lu bëri dégg naa ci sama papa ca Koosi samay nopp mu ne bi bàyyi di tafsir alxuraan ñu ne ko Yaasu Sarr am na doom ji jigéen ñu ne bàyyi fa leen ak tontu na leen boroom alxuraan juddu na loolu rek doy na wax. je voyais sa maman muy jigéen ju ju am personnalité ba pare.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 هذا أعطاه هنا فمنون أو أمسك بغير حساب يلا من ليس رغم إلا ما لكم أي تلوز بين كونديشن الحمد لله جاب له نقدر نجاب بين كونديشن الحمد لله إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني مسا إتو القرآن لا خادمة القرآن بموت ده بهم تاني من ماي serviteur servitrice alquran loolu moom nekk xale bu tuuti ci la ci la dund ba ba ilaa yawmil qiyaamati nekk ci alquran ji man sama baay sant rek alhamdulilah ci laa nekk ba turoo taxaw de wax na ma ne leen ñëpp laa jàngal alquran la waaye yaa ko gën yaa ko bëgg loolu moo wax ci sama kanam mbokk yëpp alhamdulilah loolu sant yàlla loolu waaye xaw ma ay kii agendaay suñu nit la koo xam ne bu la yàlla booleek moom foo em rek yaa fa emale sa bopp ci moom nit la ku baax nit la ku tabe nit la ku oyof nit la koo xam ne dafa jikko dafa bëri jikko yoo xam mi ngi won ci Mawlana Cheikh Ibrahim ñu ngi koy gis ci mom fay toyal sama xol toujours billaahi. Maryamu bintu Cheikhina bushra lana ijtina jaa as-sururu wal-hana ya marhaban ya marhaban anti habibatun lana waaye daal soxna si moom di yaama dafa baax bàyyi bàyyi ju baax mooy fondation ak yaay ju baax mooy fondation bu baax jigéen la joo xam ne moom man góor ñu bëri ndax jigéen ju jóge ko fii ba siin topp réew yi réew mu nekk mu dugal fa lislaam am fa mu fa wax daal bëri na góor ñu ko deful sax elle est reconnue et connue je dis encore une fois comme une femme sa notoriété et ses actions dépassent les frontières du Sénégal et même de l'Afrique. Si vous trouvez Hadja Mariama Yaboy Saida à la Mecque et que vous voyez comment les Séoudiens la traitent avec respect, avec considération, avec affection, c'est là que vous entrez dans une dimension la plus grande la dimension islamique. li naari Mauritanie yi wax ci moom mooy dëgg ne nañ ko waristil xalila waniltil jada wa xusti min alfaydi axla xula ñu ne ko donn nga sa baay donn nga xalil fayda bi bi gën a rëy moom la donn ci baay bëgg alxuraan bëgg na alxuraan ba ku mu yar sax boo danga jàngal ba nga wàcc waaye bu la jàngalee bala la wàcc ba nga wàcc du la du du la delloo dalay lay yar boo matee am jabar mu takk la jabar soo matee am e, jëkkër mu wutal la jëkkër su ma mag fii la jàngee alxuraan ba wàcc ba mokkal alxuraan mu yóbbu ko màkka macha allah may ko soxna takkal ko jabar musoka yewi eh, mu dem sen eh, sen keur fekk nak amna métier am man nak après bim sam papa bim mu résultat bop non ne ko duma dañ ci dila jox suma dom dalen di jangal alcorane ci lama indé man mi may jang alcorane depuis 92 batay ji ta fim jaar ak sama man bu dafa la jaar ak man parce que dem na Maroc yobuna ma def ben concours Maroc

ba nga nit ki sax sax Seyda c'est une autre dimension c'est une autre dimension même elle elle se cache elle porte un voile son vrai visage non a ma fierté te war na war na siiw ba jigéen ñi xam ne bi yàlla waxee julli ñu góor ak julli ñu jigéen ba muy fukki daraja ñëpp mu mel ni daf reen a yemale yaa ma exemple la ci man daal damay ñaan pour que yàlla yàggal ko fi lool pour que nit ñi di mën di roy ci moom moom itam li muy joxe mën na tasaaroo. bañ ko xamee ba tey kenn mësul am ndaje mu wuuteeg ndaje mu mu yàlla gërëm nga séen ko ca loola la sëñ ba doon wax Cheikh Islam Haaj Ibrahima Niass fa kullu man xadama laqani fi fii jannatil xuldi bila buhtani ku mu xëyal rek jox naa la daan di wàll jànn waa léegi bu fekkee borom xam-xam ku mag ku màggee noonu moo wax ni ku ko xëyal jox na la daan diw waaw kii xëyal yàlla di xëyal alquran karim moom tam te boole di ko ci xëyal moom ko ko kan la war a doon loolu la nit mun ta xam. une femme très saine. très pieuse et, très dégourdie aussi dara il a une force morale qui indescriptible parce que maintenant si vous allez avec elle voyager elle est infatigable peut-être maintenant avec l'âge quand elle est préoccupée par un dossier elle me dit on reste pendant toute la nuit on ne dort pas.

waaye yooyu yëpp dara da ko ci fekk lépp ay sëri ci lay génn indi ko fii. demal këram melut ni pale daara la ko def te amoon na moyen pour tabax ko pale ba ci biir néegam ba ci kaw lalam daara la peut-être que ni ma ko gisee mooy yaram ak xaadimatul quran bi muy woote moom la ko yàlla moom moo ko wuy si moo tax jii ni du gis taar. il n'a jamais été attaché aux au luxe euh, aux belles. Euh, Euh, c'est-à-dire aux, beaux habits, à toilettes, parures, tout ça. Il sacrifiait tout, tout ce qu'on lui donnait. Il le mettait de, euh, dans la prise en charge des enfants quoi, et dans l'éducation. Celui qui éduque doit d'abord s'éduquer. Donc, tu ne peux pas euh, éduquer des masses alors que toi-même, tu ne te l'appliques pas. Donc, je pense qu'elle, elle a pratiqué la règle. Je me l'applique d'abord avant que je puisse le, le, le proposer aux autres. Elle ne l'impose pas, mais elle le propose. maymuna yaa yool banaatu zaaxim na ilaa naylal ula amma bi ibdaanin fala eh, yéen suma doom yu jigéen yi rajo rajo loo leen ci dem ci am ak kowe waaye waxuma rajo rajo yaram ak feeñ ak sañse ak xàppati ak maa fi dàqale maay doomi bàyyi ak lii la di ko wane ci yaram loolu waxuma ko de rajo rajo loo ci am kowe waaye Maria ngeen a fait presque le tour du monde pour porter très haut la voix de l'islam, propager l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est également une manière de suivre les traces de son père, Cheikh al-Islam, qui lui avait déjà tracé la voie. inna hada kaana lakum jazaa wa kaana sa'yukum mashkuura wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu buy jógee Màkka dem Imaaraat ay Dubai ak yooyu Qatar Qatar jabari buur bi suma xarit la benn bakkat buuru Qatar bi eh, eh, Abu Dhabi itam ba ma demee jabar Cheikh Cheikha Fatima jabar seex bi daf maa ñaan ne ma naa ñëw naa toog fii di ma jàngal alxuraan ma ne ko ah yàlla yàlla dafa ne xubbul watan min al iman bëgg sa réew ci gëm yàlla la bokk man nag sama réew ma gënal toog fa moom ma gënal fa moom yow boo amee doom yi jàngale boo ko indee dinaa leen jàngal ba ma ne naa la utal kenn it ma ut ko andi waaye man suma bopp man sama réew rek laay toog di jàngale ko bëgg sama jàngale fekk ko foofu Elle a également participé aux plus grandes rencontres mondiales consacrées à l'islam et au Coran. À l'occasion d'un voyage en Arabie saoudite, elle a été invitée à la télévision nationale en compagnie d'un de ses élèves, Ali Harazim, actuellement enseignant et imam en France. Ses voyages en Mauritanie étaient beaucoup plus fréquents vu le nombre de talibés et d'admirateurs qu'elle compte dans cette république islamique. À 82 ans, Seyda Maria Magnas ne se couche jamais avant minuit. Parfois, elle reste jusqu'à la prière du matin. Nous l'avons pu constater de nous-mêmes à l'occasion d'une nuit qui nous paraissait assez longue avec elle dans sa maison à Kaolak. Ici, le temps de Khadimatul Quran est partagé entre l'enseignement du Coran, la lecture, mais aussi les causeries familiales. moom ximee nag mu ne subhaanaka tudd naa sa màggaay yow yàlla ak sa sell seedeel ma ne maa ngi bokk ci jullit ñi as-salaatu xayrun minan nawm allahu akbar allahu akbar laa الجلي الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله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 Elle voyage partout avec lui et l'enseigne à chaque occasion. C'est pour démontrer ici son amour pour les enfants. Son plaisir, elle sait, d'être là, entourée des enfants, de les éduquer, de les enseigner, de vivre avec eux de 6 h du matin à minuit. Il se réveille à 5 h du matin avec les enfants autour d'elle. Elle ne se couche pas avant minuit, toujours les enfants autour d'elle. mayna sama bop xalé yi ndaw yépp di leen yar di leen jàngal alquran di leen yar tarbiya islam loolu laa ne saroon ñaan ko yàlla yàlla may na ma ko alhamdulilah mooy naa tey naa ka waxati ko hmm. de conquête en conquête Seyda Maria Magnas gagne du terrain C'est ainsi qu'elle a pensé déjà dans les années 80 de mettre en place un institut islamique qui sera le prolongement et la continuité de Darul Qur'an al-Karim. À partir de 1982, elle avait déjà des ambitions et un projet de, créer un institut islamique assez grand comme celui-là. Déjà, elle avait cette vision, quoi. Très longtemps. Elle avait même appelé un architecte, lui dire de concevoir et tout ça xale yi bu école tëjee rek ma tok man kenn ci nu xale yi yëpp ñu yóbbu doom école man amuma ko may jangal ba wala fête wala ki ci laa ne sax ñaan Abdou Diouf terrain ma may ma terrain boobu ma def ko suma dara quand le président Abdou Diouf est euh, devenu président du Sénégal son premier voyage était au Saloum donc à l'accueil ma mère en tant que fille de Bagnès, naturellement il, il est allé avec ses élèves. Euh, à Taïba pour l'accueillir. quoi. Et là, les élèves ont lu le Coran et, le président était vraiment impressionné, quoi, Abdou Diouf. Et, au retour à Dakar, euh, il a demandé à le rencontrer, il a accepté de, la recevoir, il lui a demandé les nouvelles de l'école. quoi. La maman lui a dit, ben, l'école, ben, c'est ma maison, c'est mon domicile, mon <laughs> foyer qui me sert d'école. Il dit, à quoi ton foyer C'est pas possible, non. Avec tous les résultats auxquels vous êtes arrivés là, il dit voilà, il en est ainsi. Donc il lui a dit bon, ça, ça va changer quoi. Je vais, je vais vous aider et vous appuyer. ay neen ñu bari nag dimbale nañ ma ci tabax bi ci màkka ay buur ndax bi ma ko mayee def na ma comme bàyyi am na ay nit yu bari ci bitim réew te ma laa defal lettre recommandée nga nga dem seeti leen moom la ma defal ma seeti leen. finalement euh, pour compléter tout en 86 et là la maman a fait la pose de la première pierre de cette école. Mais il a fallu attendre en 1994 pour que l'école démarre. En ma qualité de déclarant responsable, je me suis engagé à me conformer à la réglementation de l'enseignement privé, à appliquer les horaires et programmes, à me soumettre au contrôle des inspecteurs et des médecins, à transmettre aux autorités responsables les rapports statistiques et un rapport annuel. L'école a démarré quoi, avec six classes au départ. Bon, nous, on a introduit l'enseignement coranique parce que c'est le domaine de la maman, c'est sa spécialité. Donc, elle maîtrise très bien, elle a formé beaucoup de gens. En plus, elle a eu des, professeurs euh, mauritaniens, égyptiens qu'on lui a envoyés régulièrement. Quoi. Donc, elle en a profité pour introduire cette expérience. Elle, la première, elle est la première qui a introduit l'enseignement religieux au niveau de l'école française parce que ici, la dominante, quand même, c'est l'enseignement français, il faut le savoir c'est une école reconnue par le gouvernement qui applique les programmes officiels. Mais à partir de 1994, on a introduit le Coran et l'enseignement Je suis venu euh, dans le cadre de la coopération culturelle entre la Mauritanie et le Sénégal. La Mauritanie a toujours présente dans les activités culturelles au niveau de l'enseignement au Sénégal. je suis venue en 94. J'étais très jeune. J'étais très, très, très jeune. Mais j'ai beaucoup appris ici. En fait, c'est Seda Maria Magnas qui m'a éduquée. L'école actuellement, en fait, il y a deux systèmes qui ne sont pas apparents ni visibles. Quoi. Bon, il y a un système d'enseignement, on dit franco-arabe, mais à dominante française, qui commence du préscolaire jusqu'en terminale. Dès le départ, l'école euh, est née avec euh, une certaine complexité. Parce que pour démarrer l'expérience de l'enseignement coranique au niveau de l'école formelle, il y avait deux conditions. D'abord, il fallait retenir les élèves toute la journée, de 8h jusqu'à 17h. Or, pour les retenir, il fallait, leur assurer le, le manger. Il fallait aussi les transporter parce que la zone est un peu enclavée. Chaque jour, on, consomme 120 kg de riz près une quarantaine de kilos de poisson, de viande, ainsi Donc on a fait un budget en fonction duquel on met au moins 1200 repas à la disposition des élèves. alhamdulilah. danañ toggal xale yi duñ xiif duñ manqué de xale yi bu ñibbiyaan sax seen kër mais dooru bi dañuy wax ne ne yaay na yóbbu ci dañuy dem école ñu ne ko école tey jànguñ mu ko yóbbu ma ma añi boobu <laughs> mu ne ko jànguñ togguñ añi tam muy jooy ne ko fa nga yóbbu ma ci école ma añi mu ne ko xagaay ma yóbbu la boog ca daara ji yaay booy indil ma ko Le cours est comme un défi, quoi. Parce qu'il fallait faire ça. Donc la maman l'a fait en ne cherchant pas le bénéfice. Elle cherchait vraiment à ce qu'on introduise l'enseignement coranique dans le système éducatif. C'était ça son objectif. Quel que soit le coût. On a rarement eu des bénéfices, quoi. Sinon, jamais presque. Alhamdulillah, bàyyi mu ne kaamel bi mu ngi mel ni mu ngi nii boo jàppee ci wet gi yàlla mu ngi jàpp ci geneen moo tax loolu mooy suñ ndimbal ñu koy dimbali ko yalla taxawayam ci école bi rafetna na nañu bu baakha baakha baakha a baax surtout ñun jàngalkatu alquran yi ñi ngi liggey bu baax nek ak suñu collègue yi ñi ngi ñiy jàngale français ak ñi jangalé alquran mëno ci xamé kenn nak moroma ñun ñepp fi ben lañ ya boy ñepp lay jappalé xam-xam rek moko ñor ci aduna Mbaye tay wax ñu ne jang yépp baax. jàng mokk rek mokk li ngay jang na mokk rek nga xam ko mom lañ ci bul waaye jàng nasaraan ak jang yeneen yep yep ben yep ben yep bax da waye ngay jang nga fexé ba comprendre ko da 1994-2014, l'école Saïda Maria Magnas a 20 ans. C'est l'âge de la maturité et les meilleurs résultats scolaires au niveau de tous les cycles le confirment. En effet, Seyda Maria Magnas participe au développement économique et culturel du pays. L'école emploie plus d'une centaine de personnes et enseigne l'éducation religieuse islamique à des milliers d'élèves qui seront les garants de notre société d'aujourd'hui et de demain. daara ñett ñi kenn mënu ko ci wuutu def ci nit ki ak njàmbaar def ci nit ki ak doylu def ci nit ki aw fit ñett yi daara kenn mënu ko ci remplacer Sayda Mariama na ko yàlla gën a sàmm xam te itam ci lolu la mag ci lolu la gimmi ci lolu la nek te mosu ci jóg ndax minal mahdi ila lahdi la yontu baxoon ali salaatu alayhi bi biñ la lewo di la tuddu ba biñ la lewo di la rob bu fi bu fi jël bind. une bonne éducation doit être n'est-ce pas doit avoir comme fondement les valeurs traditionnelles les valeurs sociales n'est-ce pas qui sont les valeurs euh, religieuses, qui sont les valeurs euh, euh, publiques, n'est-ce pas Alors donc c'est en ce moment que l'on peut, n'est-ce pas, parler d'éducation nationale. Entre Maria Magnas et Ibrahim Magnas, les similitudes sont énormes, car la première citée ici a toujours suivi les pas de son père et maître. Comme les surnoms Baï et Cheikh al-Islam qui ont été collés à Ibrahim Magnas, Maria Magnas se fera à son tour appeler Khadimatul Qur'an et Yaïboïa. La fille de Baynas accepte d'être la mère de tout le monde. ndey la li koy wax yaabooy moom mooy yaabooy pire liñ wax Bay Bay ci maqaam mi ñuy wax Bay baay moom mooy yaabooy su teddé ci lalam nag balaa muy wàcce tankam yi bàyyi rek la waaye bu wàccee tankam yi nak ba juk ba ba tok rek mu nekk Seyda Mariam waye bu nekk ci lal bi mom bàyyi la bàyyi lay doon. Cheikh Mariam suma yaay dañuy bokk ndey ak baay damay wax toujours avec fierté né man Seyda man xaw ma yaay Seyda la xam damay wax né lepp lo xamné mo ngi ci man rek Seyda ko ci def. Je lui dis souvent tu es ma grande sœur mais tu es aussi ma mère voyez-vous quand je suis venu à l'université de Dakar j'avais 19 ans. J'ai resté sept ans au lycée fédéral de Saint-Louis pour faire mes humanités. J'étais à la cité universitaire. Quand je tombais malade, eh bien, c'est Adiyama qui venait avec ses enfants. À l'époque, c'était Bounou Maria Pour m'apporter le ngourban avec lequel on me soignait. Le jus de citron avec lequel on me soignait. Parce que j'étais souvent appelé à recevoir des crises de paludisme. Eh bien, elle me soignait. Ma mère était à Kermadjavel. C'est elle qui était là, à la fois la soeur et la maman, et qui me soignait. Vous savez, ce sont des moments qu'on n'oublie pas. bu daan tukki day yàgg waaye nag dafa am euh, tukki moom bizaat moom yàlla ko indi ci sama rek ñu ñu di ko séntu pour mu war a ñibbisi ma ne kii de war naa ko defal benn poème boo xam ne day des ma daal di koy improviser ci saa si bind ko denc ko bi mu demee ba waaje a ñëw ma oo xale yi ñoom ñëpp ma jàngal leen ko ñu teeroo ko ko keroog même ses larmes tombé nañ keroog parce que Seyda mérite tout c'est une noble femme. waaw <laughs> touché na moom trop touché na moom trop ñun ñëpp bañ a ñoo touché wu daal dafa dugg ci sama xol dugg ci xol ñu koy dégg xam nga loo xam ne dafa jógee ci yàlla bàyyi ma ne. lu jógee ci gémmiñ romb gémmiñ ga gémmiñ gi rek ci waaye lu jógee ci eh, yàlla jógee ci nopp jógee ci xol ci nopp lay jaar xam nga kontaan noonu laa xatta ñaanal Mouhamad Lamine suma rakk ji ma yàlla yàkkal ko fi mu yàgg fent ci barke alxuraan maa ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla may ko fan lu gudd a gudd gudd gudd panafricaniste convaincu Saïda Maria Magnas a enlevé toutes les frontières entre les pays africains et les barrières linguistiques. Chez Saïda Maria Magnas, on parle presque toutes les langues africaines. Ici, l'intégration est une réalité. ndono la ne dafa fekk baayam nekk ci mu nekk ci ndax baay fu mu nekk dëgg-dëgg làkk fa lak rek ñu tontu la ko loolu nag na ci pays bay bi tay bo fi ñëwee amul ben lak ci làkki Afrique yi boo fi mën a wax lu may da nga gis koo xam ne mu nga taxawee làkk woo mën la ci tontu. Seyda ba dafa ñëwoon Ghana boobu ñu ngi nekk lu tuuti sama maam nekkoo ndax dinga nga ànd ak kii nii mu ne ko waaw mu ne ko euh, ma ne ko dina ànd ak moom mu ne xam nga ko ma ne ko ah xaw ma ko waaye xam naa ne ku baax la. mu ne ma boo demee doo gis sa yaay doo gis sa papa doo gis sa seen ndey ma ne ko ma ne ko waaw mun ak moom. mbébét bu mu bëggoon ci ñun mooy jël ñu yar ñu ba su suñu waajur yi buñ ñu gisee xam na ne am na lu mu def ci ñun tey sama papa du du sénégalais suma yaay du sénégalais amu fi mbokk du Cheikh Amar Ibrahim Niass waaye mbokk boobu moo ma gën a ma ndey ak sama baay ndax def na ci man loo xamante ne. tey sama waajur bu ñu ma yoroon duñ ko def ci man mooy lu gën mooy alquran. ba mu nekkee xale bu ndaw ba léegi moo ma yar maanaam sama papa sama yaay fi lañ nekkoon ñu ngi jógee ba Togo ñëw fii ba may nekk lu ndaw laa fi ñëw mu jàngal ma alquran yóbbu ma ci école ma jàng macha allah arab may ma jëkkër may sëy maa ngi sëy ci kër gi fii nii. Euh, Gaana laa juddu am na fi ñi fi nekk ñoo xamante ne Nigéria lañ juddu. yu bari ay nationalité yu bari bari bari bari mo jël leen ouf leen de leen jangal wax yalla euh mat leen yaay ak baay tammi wax deug yalla jangal ñu lu mu waré ñi jang ko jang bu normal ba fuñu genn ci aduna bi naari dañu jaa laaj sa yeen fan nga jangé no leen def ba mën alquran bi billahi minash shaitanir rajim anti wa Entre l'enseignement et Saïda Maria Magnas, c'est une vieille histoire. Elle a très tôt eu le flair. Ce qui fait qu'elle a des méthodes pédagogiques extraordinaires

damaa dégg ñoom gis lu ma jëlee kii bi daal damaa gis luñ dégg ci télévision bi rek di ko jéem a répété moo tax ma leen di sa alxuraan balaa ñoo nag di répété loo xam ne amoon njëriñ loolu seet ko ci xeer rek bu fekkee benn mool bu tooy nga rëdd ci xam nga ne mool bu woowee sax rëdd bi du faas bu dee ku makki nag nga fekk ndox du soo ndox taaj rëdd ne boo yëkkati dootoo gisati rëdd bi xam nga li ma man gis naa système bi muy doxale mooy bu a ñëwee danañ ko fexe bam bokk ci famille bi maanaam bokk ci daara ji loolu laa bëgg a wax fexe bam fer ij ji xàmmee araf ak morom ja ñu commencé koo taawidal te mooy muy boole bu tollee foofu ñu commencé ko dugal ci xes mu tahfiis mu tàmbali mokkal jëm kaw donc ñoom système boobu la ñuy doxal système la boo xam ne bii soo demoon ba bàyyi danga yóbbaale dara te mooy danga yóbbaale foo gisati alxuraan liir danga yóbbaale fu ñu la joxati jukki nga jël. seekar bi de yàllaa ko may rek man ko xam naa dama bëri woon lu may tukkee ànd ak bàyyi tukkee ci àll bi nag yàlla dafay wax ne xul siro bi la de xam nga ngeen damay rek lu nekk dama koy xool ñoom ko eh, adopté ci xale yi. dem gis ñu jàngee alxuraan rafet neex ma lool méthode boobu fekk na sama sëriñ jàngal na ba mokkal alxuraan waaye méthode boobu moom maa ko jàng ci yi ay xale yu jëg yooyu ma fekk ñu koy jàngee man itam ko ba ma ñëwee sama sëriñ di ne lu tax ngay jàngee li jàngalu ma ko sax ma ne ko ah, dangaa bëgg ma yem ma jàng rek lu ma gis rek bëgg naa koo xam bàyyi na ne jàng leen xam leen lu nekk cependant la retraite ne fait pas partie de son vocabulaire. c'est toute une histoire toute une vie un modèle pour le Sénégal l'Afrique et la femme noire.

لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ني الذين امنوا وكانوا يتقون ني خا خني دانيو گم ترغال يالا امون بن تيتاني امون بن بن بن تيتاني تي افير رسول الله مانكو ني نين لا موني ني گم ني گم يالا ترغال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب mu ne ko ragal yàlla dinaa la defal genn waaye boo xam ne dinaa la wërsagal ci foo ko foogee wut bu ma ne tawakkal ala foo waxas huwa hasbuhu ku wàkkirlu ci yàlla yàlla doy na la hmm. alhamdulillah yéenay liggéey bay du bay ji barahama Kossy TV am ngeen jarama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey fay du baay bi ci ji barahama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di